yow yaa sañ yow yaa sañ yow yaa sañ a def nag bilee àllarba nag bu yéeme bilee àllarba nag moo doy waar bilee àllarba nag moo lëndëm bilee àllarba nag moo triste bii àllarba nag la kenn du fàtte ci laa ñàkk nag sama cofeel di sama waajur di baay bu mat cofeel di baay boo xam ne nii liggéeykat la woon di baay boo xam ne nii boroom ngëm-ngëm la woon di baay boo xam ne nii kenn la woon ci wut royukaay ci benn àllarba nag bu ñépp xam mu dëppook nag fukki fan ag ñeent ci mois de juin ci atum 2006 ci fukki waxtu yàgg juróom-ñett di 18 heures ci lañ xabaar xibaar bu ñuy wax ne génn na àdduna muy lu kenn xaarul woon muy ak demam mu nekk loo xam ne itam nag lu dëggu ndax dem na waaye nag ñi ngi ñaan nag foofu mu tëdd nag di suufus daaru marnaan di suufus cosaanam di suuf soo xam ne itam ay ngëm-ngëmam foofu la nekk di suuf soo xam ne nii nag ay waajuram itam nag fa lañ tëdd ak nag ay rakkam papa jëf ñi ngi jariñu nag ci yar gi ñu yar papa nag ñi ngi jariñu ci xéewal nag gi ñu bàyyeel papa nag ngi jariñu ci xirtal gi ñu xirtaloon nag ci liggéey xam ne ni kenn du la mas a fàtte nag saa bu ñu jullee nag ñu ngi lay ñaanal di sàkku nag ci ñépp itam nag ñu koy ñaanalal papa moo xam ay lixlaas la ba ci ay salaatu ala nabi papa nag ñu ngi lay jooy nag ci sa ginnaaw waaye nag suñu xel dal na bàyyee nga ñoo nag rakk joo xam ni nag mat na bàyyi mu nekkoon nag xarit ci yow di waajur nag ci ñun ñu gën koo xam nag ci sumbul silla ak nag ay waajur yu jigéen nag yu mat waajur ñi ngi ànd ak nag suñu rakk joo xam ni nag xamoo ko xamu la sax nag lay wuyoo di aas si ñu ngi lay ñaanal na nga tëdd ak jàmm ci foofu na nga tëdd di suufus daaru marnaan ci wetu nag ca ka nga yaakaaroon di sëriñ cheikh awa balla mbàkke ñu gënoon koo xam nag ci yaxa fa muy sëriñ ahmadu bamba mbàkke jaarale ko nag ca kasay waajur yaakaaroon di maam cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru di ànd nag bu yàgg ci njaboot gi nga tëdd nag ci dëkk boobu nag ci sa wetu waajur wa El Hadji Talla Sylla ak sa yaay ju baax ja du suñu maam maam soxna silla sa rakk ja teel a dem di soxna maam xari mbar Sylla sa doom ja nga faye woon nag sëriñ abdul ahad mbàkke di abdul ahad Sylla xéewal nag yàlla nay wéy nag di sotteeku foofu ngeen tëdd nag di daaru marnaan bàyyi daam si la say doom yi la dut fàtte say doom yi xam yow yaay kan say doom yi xam nag li nga def ci ñoom ñooy maase nag di la ñaanal yal na yërmande nag wéy nag di nekk ci yow